tey ñu ngi si Medina moom ceeb lañ fi bay euh, di comme nous fu jaar engrais bu ci ci bi ah gis nañ fi résultat yu mucc ayib yoo xam ne euh, suñu nous moom tasul ci engrais yu ñu pour euh, ceeb bi parce que def nañ ko ci gerte gi def ko ci dugub bi ñaari fan yi yëpp ñu ngi woon ci ceeb ci dugub bi ak gerte gi tey ñu ngi nii tey gis premier toolu ceeb bi gis euh, engrais bu bees bi surtout bi ñu boole ak euh, compost bi vraiment am nañ ci yaakaar daal xam naa bés bu ñu récolté ba def euh, composante yeeg yëpp ba def analyse yi xam naa ne nañu gën a gis différence bi entre <coughs> li ñu am daan am ak engrais bi fi nekkoon depuis ay at yi at ñu bëgg koo changé ak li bees pluvial bi xam nga zone irriguée moom 6 tonnes ak 7 tonnes à l'hectare ngay dégg mais si zone pluviale pratiquement ay 2 tonnes maximum 3 tonnes Nous avons am léegi ñun bi ñuy tàgg euh, objectif de rendement de 3 tonnes pluvial. parce que booy euh, rendement maximal yi ay 3 tonnes wa, moom la ñu am comme objectif léegi nag xam naa bu résultat yi génnee nañu xool ndax dépassé nañ suñu ay euh, wala fii euh, li ñu euh, kii woon cible woon comme objectif moom la ñuy am wa, zone irriguée moom xam nga ndox da ngay ndox tout le temps donc euh, potentiel bi day gën élevé il faut posen kii yu ñu am fii ñu ngi utiliser variété nerica pour zone de sécheresse là mais on xool euh, ci euh, zone euh, irriguée ça yi est ñu utiliser ak les iseries yu am ay potentiel rendement 12 tonnes à l'hectare donc zone irriguée da ngay des fois di ont 8 tonnes à l'hectare il y a une très grande différence mais fii qui <clears throat> bi contrainte bi mooy ndox bi bu tawee rek loolu mooy permettre ñu am ndox buy voilà parce que dañu avons ay engrais zone bu nekk am engrais pour euh, ceeb waaw zone bu même vallée bi yeneen engrais moo fa am fait donc 12 18 18 7S 12 18 18 7S moom la ñu testé ici, si de plateau si bassin arachidier dal na xel waaw parce que booy xool Sénégal oriental beneen engrais lañ utiliser basse et moyenne Casamance tamit beneen engrais pour bas-fond ak plateau vallée aussi am trois engrais différents C'est delta bi moyenne vallée ak haute vallée Matam voilà suivant zone agroécologique bu ne am na engrais am ndax suuf yi du benn waaw dañ def ay analyse si suuf si saytu ko ba pare fu souvent suuf bi ferñeent yu fa ne ñu xool lan la indi pour dimbali suuf si dimbali gàncax bi. yaakaar nañ ne xeeti engrais yi ñu fi indi tey nii yi ñu fi gis tey ñu fi liggéey ren. su dee jàppale nañ ci ba man ba mëna yomb ci ñun ñun jappalé bu baax dina gëna yok suñ mbay parce que ñun dañuy yëngu rek ci euh, mbay dundé di ciép ciép mom muy lo xamné lu yagg Medina ngeen la luñ yàgg bëgg la nemmeeku nañ ci né amna doolé bu baax amna doolé bu baax dëgg yalla fi nga xamné def nañ ko fi ren trop yeneen engrais yi fi nekkoon. kon moom wax dëgg yàlla suñu bëgg-bëgg mooy mooy ngeen wéyal ko mu dem ba nga xam ne dañ ko def ci bépp tool boo xam ne ñu ngi koy bay fii ci Médina Nguéne ñu def ko ci yaakaar naa suñ ko amee dina nekk si ñun yokkate bu baax parce que am na njëriñ trop ci ceeb bi.